Mauritanie waaye nag nee na wàllu musique ci Sénégal la ko dooree nee na nag critique loola ci li xam ne mooy Sen Petit Gallé alors normal wax na nag li xam ne mooy ay projet ma ma ngi ci Rewmi Quotidien yéen a kaay gi délibération wax ci Coupe d'Afrique beeg match bi nga xam ne moo war a dox diggante Sénégal ak Égypte niki suba ci dimanche ji final bi ramener la coupe à la maison noonu la ko journal bi xëy ci xët mu njëkk yéen a kaay gi di Stades nee na ab sud africain di Miguel Gomis mooy arbitre final bi war a dox diggante Sénégal ak Égypte yéen kay gi di Stades ñu fekk fa Salif Diao mi nga xam ne journaliste la nekk ci kër gi di APS daan nay wax ne Sénégal jamono ji moo ëpp doole ñi nga xam ne ñooy waa Cameroun bu ñu waxante dëgg teg ko rek ci cadre football Sénégal moo man Sénégal moo gën a jege li nga xam ne mooy coupe bi Mbaye Sène di journaliste sportif daan nay wax ne waaye nag nañu def attention ci contre yi nga xam ne Égypte dañu koy di def Soxna Fall bu bi bu baax a baax maanaam piège yi nga xam ne Égypte daf koy teg Soda Caam RFM daat nay wax ne tempérament maanaam bu gérée la gaynde yi war a indi maanaam nekk ay gaynde dëggantaana teg leen lu diis yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Caam bu quotidien daat nay wax ne physiquement jamono ji Sénégal moo gën a taxaw waaye na nañu respecté bu baax a baax sunu adversaire bii nga xam ne mooy Égypte jamono ji nag amul benn joueur bu Sénégal boo xam ne amee na coronavirus waaye tamit amul benn joueur boobu Égypte boo xam ne amee na coronavirus yéen a na wuré wa mag dem nañ dañ taali force jël la ama lépp dina leer yéen kaay gi di Dakar Times xëy di ñu xibaar naan ñu final coupe d'Afrique 2022 un peuple un but la coupe yéen kaay gi nee na lu toll ci fukk ak juróom ñaari millions yi doomu réewum Sénégal ñooy xaar li nga xam ne mooy coupe bi mu war a bàyyi ko nag ci Sadio ñi nga xam ne ñoom laa àndal waaye nag duel bu saf sàpp dina am diggante Sadio Mané ak ki nga xam ne mooy Mo Salah yéen kaay gi nee na Sadio Mané musuta jël li nga mooy coupe d'Afrique ki nga xam ne tamit mooy nga xam ne mooy coupe d'Afrique ci réew moomee di Égypte duel épique yéenekaay gi de l'info nee na nag dimanche boo xamante ni maanaam Sénégal yi daal ñoo ngi xaar ba pare nag teg si di gént loola jamono ji nag Sénégal dafa war a dugg ci li nga xam ne mooy histoire football def loo xam ne mosutaam ci football maanaam ci réewum Sénégal yéenekaay gi nee na xaar bi nag yàgg na lool lool lool ndax sénégalais yi maanaam yàgg nañoo xaar li nga xam ne mooy coupe d'Afrique ndax yàlla nag bii nag ndax dina baax yéenekaay gi di Vox Populi nee na en tout cas Macky Sall mooy stress bi jamono ji maanaam dugg na sénégalais yu bare bare bare waaye tamit sénégalais yi ñoo ngi xara jamono ji bëri na tamit ay sénégalais yoo xam ne dañoo nag excité ci xaar li nga xam ne mooy coupe d'Afrique bi yéen kaay gi nee na njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay jaajee ñi nga xam ne ñooy gaynde yi nee na léegi yuuxu leen nag maanaam nag teg ci nag seen bakkana andi fi li nga xam ne mooy coupe bi ma Mané daat nay wax ne ñoom am nañu expérience li nga xam ne mooy football ab final na en ndax nag Sénégal musuta jël li nga xam ne muy coupe d'Afrique bi te daf koo bëgg a jël ñi nga xam ne nag ñooy waa Égypte jël nañ ko juróom ñaar yoon ñoom teen juróom-ñetteelu yoon lañ ko bëgg a jël yéen a kaay gi di Walf xëy duñu naan ñu le moment ou jamais yéen a kaay gi di L'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu équipe nationale bu Sénégal dafa am nag rendez-vous ak histoire yéen kaay gi di L'As nee na sunu gaynde yi nag ñoo ngi jàkkaarloo ak li nga xam ne maanaam mooy histoire football jamono ji am ba de sala mooy sénégalais yëpp yëpp yëpp ñoo ngi xaar li nga xam ne maanaam mooy coupe bi nag mu ñëw xew fii ci Sénégal mu nekk nag ak mbégte boo xam ne maanaam kenn mënu koo natt yéenekaay gi de la Soleil xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum présidence Union africaine njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam nag dina jël fonction ci week-end bi yéenekaay gi ne na bëri na nag ay dossier yu tàng jër yoo xam ne moo fay xaar Macky Sall yéenekaay gi di Vox Populi ñu koy fekk fa Salif Sadio moom nag daan a menacer ñi nga xam ne ñooy waa Gambie nee nañ nag Gambie daal Salif Sadio nee na Gambie su bëggee guerre moom pare na ngir guerre ak Gambie waaye nag Guinée-Bissau ndax moom Salif Sadio nee na Guinée-Bissau gi nga xam ne nag moo ko fi commencé woon daan na koy regretté bu baax a baax moom Salif daan nay wax ne pare na nag ngir bàyyi ñi nga xam ne teg na leen loxo yéen kaay gii di lay jëkko xëy dañu benn at ginnaaw bi fi mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko sulee ko ci réew mi affaire Sweet Beauté yéen kaay gi nee na at mi man na benn at la nga xam ne nag moo xewoon ci dossier boobu bëri na loola bëri woon na ay manifestation lu toll ci fukk ak yoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan te ba léegi nii zéro